أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu toll ci suura al an'am ci kattanu borom bi ak ay ndogalam tey danañ jël benn aaya rek muy aaya 70 aaya boobu borom bi mu ngi ñu ciy jàngal ñaari mbir bi ci njëkk mooy wujub at tazkir bil quran wa xaasa al muminin alladina yurja tawbatuhum aaya bi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala lim ñu ci bëgg a jàngal ak di ñu ko ci fàttali mooy waral gi mu waral ñuy fàttali waaye bu ñuy fàttali ñu jëfandikoo alquran rawatina bu fekkente ne ñi ñuy fàttali ay way gëm yàlla lañ ay jullit lañ rawatina ay nit ñoo xam ne yaakaar nañ seen tuub kon ndeke li ñu war a xam ñun ñëpp mooy alquran mooy li gën a gaaw ci fàttali ab jullit loolu tax di ngeen dégg beneen aaya sunu borom naan fa zakkir bil qurani man yaxaafu waidi fàttali leen ci alquran kan ngeen di fàttali waa joo xam ne ragal na sama tëkku kon ndeke alquran rek moo fi nekk ci luy defar ab jullit su fekkee ab jullit gëm na yàlla ñu indil ko kàddu boroomam boobu mu gëm dëgg-dëgg war na cee mën a fàttaliku war na cee mën a waaroo te loolu war gor la loolu la yàlla doon wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa zakkir innama anta muzakkir fa zakkir in nafaati zikra fàttalil su fekkente ne fàttali dina jëriñ moo tax mu ne wujubu tazkir bil qur'ani waral na gi ñu waral ne dañu war a fàttali waaye bu ñuy fàttali lan la ñuy jëfandikoo mooy alquran léegi nag nit ñi bu fekkente ne dañoo dem ba ci dëkk bi ñu toll léegi nit ñi bëgguñu ku leen wax alquran kon nit ñi fu ñuy jube su fekkee yàlla nee na nañu fàttali nit ñi ak alquran pour nit ñi jub pour nit ñi baax pour nit ñi ragal yàlla nit ñi bëggatuñoo dégg alquran waaw léeg-léeg sax nga dékku ne yéen daal vraiment yàlla nee na yàlla nee na yàlla nee na wax leen ñu leneen tuuti sax nag lu bëri ngay dégg lool diw tey moom wax daanam dafay tàng torop ba daanaka boo fa teewee sax daanaka boo ñibbee doo reer daanaka diw day wax daanam day dàq nit ñi daanaka diw te ñooñu di wax loolu kooku ñuy wax ne loolu la leen wax waxu leen lu dul yàlla nee na yonent nee na ndeysaan am na benn kilifa dafa mës a julli gee ci jàkka ak mbooloo ma fa teewoon mu mu fàttali leen mu fàttali leen fàttali leen gars yi daal di ñibbi ndeysaan ñu xëy fajar rek am kenn ku ñëw ci moom ne ko diw mu ne ko la bayk mu ne ko démb kenn reeru mu ne ko lu waral loolu mu ne ko ah sa waaraate bi démb dafa tàng bi nga waxee ba pare ba nit ñi ñibbi ñi ñëpp dañoo dem rek tëdd kenn reeru mu ne ko ah ndax man dama passé qaala allahu qaala rasul mu ne ko déedéet mu ne kon lu leen di reereer dama passé qaala allah mu ne déedéet dama passé qaala rasul mu ne déedéet kon mu ne lu tere reer nit ñi kon alquran la ñu war a fàttalee nit ñi mu ne wa xaasa almuminin rawatina nag nit ñi bu fekkee ay gëm yàlla way gëm yàlla lañ kon suñ leen di fàttali dëgg-dëgg alxuraan rek moo fi nekk alxuraan donc lañ mën a utiliser fekkee gëm nañu yàlla kay am nañu tuuti ci tarfatal ayn lu tollu ngëm dëgg-dëgg alxuraan dina doy pour ñu mën a fàttaliku yàlla rawatina ñooñu ñuy fàttali suñu amee ci yoom yaakaar tuuti tuub yur jaa tawbatuhum suñu yaakaaree ne man su ma yaakaaree ne kii de bu ma ko fàttali mu tuub kii de bu ma ko fàttalee mu génn ci lii mu ne kii de bu ma ko fàttalee mu dëpp kii de bu ma waxtaanee ak moom dëgg-dëgg mu mu jëfe kooku jarul ngay taxaw parce que yow loolu lañ la yónnee kon nañuy bàyyi xel yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy waar màkk jamono bi ko yàlla di yónni màkk lëndëm torop bokkaale ne gàññ ñaaw téef loo xalaat ne gàññ bi yàlla di wax yonent bi maa la yónni yonent bi lan la doon waaree nit ñi jamono boobu ah waaw tawxiid la leen doon wax waaye ci lan la ko doon waxee ci alquran alquran bi la ko yàlla di jox mu koy fàttali nit ñi léegi ñun nag bu fekkee dañ ñu bëgg a waar dañu duñ ñu waare alquran leneen lañ ñuy waare kon fu ñu jëm wala ñun dañ ñu bëgg a baaxal waaye leneen lañ ñu bëgg a baaxale lu dul alquran fu ñu jëm moo tax gis nga mbooleem addina bi tubaab yi système yi ñu teg pour defar nit benn baaxu ci ba léegi doomu aadama baaxu waaye xoolal programme yàlla tabaraka wa taala bi mu tëral nga indi programme tubaab bi ban moo baaxal nit programme yàlla kon la moo tax ñu bu ko doyee dil dax ñu bu ko sànni da ngay gis koo xam ne jardin d'enfant ba muy am doctorat waaye buñ ko dénkee xaas bi mu sàcc ko milliards yi ngeen dox Sénégal ñan ñoo ko sàcc ñi jàng alxuraan ah du ngeen nuyu ñi ko sàcc fu ñu génne
école tubaab
mu nga pourtant tey jii bu ñu solo ba gis la ba nga xool leen yow saa ban diplôme mu ne man naa doctorat kii ne mu ne am naa licence kii mu ne am naa kii mu ne man ingénieur ndëg nangam kii ne man docteur en science patatatatru boo ko joxee xaasu réew mi mu lekk ñi lekk xaasu réew mi yëpp kenn jàngu ci alxuraan kenn génn ci école Seydina Muhammad kenn jàngul programme boobu ñuy wax alquran ah kenn kenn mu nga kon alquran moo ñëw pour defar doomu aadama ba soo ko dénkee soo ko wóoloo soo ko mayee soo ko jiitalee da ngay ñëw fekk fi mbir mango maa ngi déglu Cheikh Mouhamad docteur muy def benn waxtaan ci Abdullah ibnu Mubarak Abdullah ibnu Mubarak way jur Abdullah ibnu Mubarak Mubarak ci boppam ah jaam la woon jaam muy liggéeyal sangam sang bi xëy rek ne ko dama bëgg nga dem ci tool yi xaar ma fa mu dem def fa lu toll ak ñaari weer tool yi toll lu nekk la sang bi jóge dëkk ba ñëw ci àll bi ci tool bi ñëw ne ko may ma ci raisin yu neex yi ma lekk yu ñor yi mu ñëw dagg jox ko kilifa gi lekk ne ko dafa wex indiwaatal beneen mu dem indiwaat kooku lekk ne ko dafa wex mu dem troisième fois mu indiwaat kooku ne ko yow yow looy def ci tool bi ñaari weer ba ma lay wax may ma jox ma ngi ñetti yoon ngay indi di ma indil lu wex mu ne ko kilifa gi bi nga may wax naa ñëw ci weer ci tool bi ñaari weer yi ma fi def yépp dama doon liggéey waaye ñëw ma fi woon pour lekk raisin ba may xam yu neex yi ban côté la nekk ak yu ñor yi indi ma fi woon pour ma lekk ak ne moon demal nga liggéey moo tax ñaari weer yi ma def ci tool bi liggéey laa fi nekkoon waaye nekkuma fi woon pour ñam ak a lekk di xool yu neex yi ak yu ñor yi ban boor la nekk moo tax xawma yu ñor yi gars yi ñun ñu toog fii bu ñu dénkoon toolu mango waa ñu dénk ñu toolu raisin mbaa ñu dénk ñu toolu mboq mbaa ñu dénk ñu toolu gerte ñu ne ñaari weer nekkal ci tool boobu nga liggéey nga liggéey ba affaire yi ñor nga toog yaakaar ngeen ne ñun ñu toog fii kenn buñ ko ci dénkoon dina ñam wala du ñam wallaahi dina ñam nañu wax dëgg wallaahi dina ñam waaye da nga jëg jëri wuu waay bi xaaral ma xool yi waxuma ñu nga ñam sax waaye da ngay dóor paquet ngoon gu nekk nga dóor doo ci yem sax tem ngay woo sa xarit yi te dañ laa xoolal kii mu ne ko man xawma yu ñor yi fu mu nekk ndax musuma koo ñam moo tax comme doomam bu jigéen ndeysaan borom alal yee ko doon xëccoo wallaay xista bu bu bu bu am taasir la ci ngëm yàlla bu fekkee ku bëgg baax Abdullah ibnu Mubarak ñu ñëpp war nañoo jàngi dundam jàng dund baayam ñu gis dëgg-dëgg kon danañ jëriñ almuhim lan moo tax kooku ñu ne ko demal ci tool bi mu dem ci tool bi nekk fa ñaari weer ñamul benn raisin lu tax yàllaa tax wala dafa am ay ay garde corps daa am ay gendarme daa am ay policier daa am ay douanier daa am armée de l'air armée de terre armée de mer dañ koo wër isa xalawta yawman fakkir jayidan bi ann raqibu yu talliu aleyk saa yoo wéete jour bu mu mun a nekk bul wax mu wéet naa kenn gisuma xamal ne am na ku ku lay surveiller alam yaalam bi ann allaha yara yëgal na yàllaa ngi lay gis moo tax ngëm yàlla moo mun a defar nit ñi waaye du ay loi du ay policier du ay gendarme du ay kaso déedéet nit ñi ngëm yàlla moo leen mën a defar suñu gëmee yàlla rek dëkk bi jub waaw ngëm yàlla rek ñaareel bi mooy man maata ala kufrihi lam yanju min an naar képp koo xam ne yàlla dala natt ba nga dee ci kufr ci kéefir mënoo mucc ci safara ku xoole ba dee ci kéefir ci weddi yàlla akub yonent weddi quraan ci safara rek nga jëm ndax lan ndax doo am ku la mun a musal doo am ku la ramm ku lay xettali ci safara du góor du jigéen kon dee ci yéefir dee ci kufru baaxul dee ci weddi yàlla baaxul dee ci weddi alquran dee ci weddi sunna dee ci weddi diine yàlla bi bu ko def rek di nga dugg safara léeg-léeg booy wax loolu dina am kenn koo xam ne dana eh ñii daal vraiment ñoom ñoom dañoo tàng quoi dañoo soxor. xanaa ñoom ñoom moom diine ji est-ce que ñoom ñoom moom safara ñun dañ koy nettali rek sunu borom subhanahu wa taala moo ko waxal boppam te aaya baa ngi ñëw. kon weddi yàlla amul njëriñ ab jullit moom lii njëriñam ci kaw suuf mooy mu gëm boroomam tabaraka wa taala mu déggal boroomam topp ko jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem lii dong mooy dëgg gi waaye ay wiireeg ay jaar faleeg làqatu ci ginnaaw sàmbaak def dalay sonn rek maanaam mooy léewtoo bu yàgg la rek léewtoo bu yàgg waaye bis bu la borom bi ne nuus xam ngeen lu ciy tegu waaw yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya bi wazari alladina taxazu diinahum wal may indi ko rek acca bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون barakallahu fiik nan lañu yàlla jëriñ jëriñ la ci quraanul karim bi mbokk yi sunu borom wax na wax joo xam ne war nañ cee xalaat balaa ñuy laxas di ko fekki borom bi tabaraka wa taala nee na wadari alladina ittaxasu diinahum laciban wa lahwan wadari ay utruk ya muhammad man alladina ismu mawsul bàyyil yow muhammad bàyyil rek yàlla nee na yow yonent bi bàyyil rek te seetaan ma bàyyi maak ñan gaaña nga xam ne ah ittaxuzu dañoo jàpp diinahum seen diine laiban fo wala hëwan ak caaxaan seen diine yëpp loolu la yéen ngeen ni yaakaar ne aaya bi ñan lay waxal moo tax léeg-léeg da ngay wax gars yi dafa ne benn wax léeg-léeg ma xutba jumaa génn wala sa oustaz yow vraiment yow dafa mel ne man rek ngay waxal quoi ma ne ko man ni ma lay waxee laay waxee sama bopp laay waxee ñëpp xam nga lu tax mbir mi su suñu waxee nga defee ne yow la xam nga lu tax mu ne ah ma ne ko yàlla mooy wax ak yow alaa ya'lamu man xalaq tey aaya bi ku ko firi ci Sénégal nga génn ci télé wala ci rajo wala ci conférence ñu woo ñëpp nga wax ko dañ naan gis nga kii xool xool ko li muy wax rek kii kii kii vraiment lii li yàllaa ko wax xam ngeen ne diine Sénégal lépp ay fo la yàlla nee na bàyyil gars yi nga xam ne seen diine fo rek lañ ko jàppee ak caaxaan ba ma dajeeg ñoom xoolal diine ay sabar ay ndënd na xumbata dagan fecc gi ñii di tëb ah ñii tëyi xante ba fajar jot ngeen baal ma loolu diine la diine boo xam ne yow da ngay tux yàmbaa timis di tëgg di tëgg di tëgg ba fajar amul arrêt diine boo xam ne na xumb ñuy fecc rek yëkkati loxoy laa ilaaha illa rëgata jëgër jëgër di yuux rek yéen lii kan moo ko wax man la wala yàlla yéen yéen ngi dund Sénégal bu leen noppi li ngeen ragal yàlla moo ko wax ne mi ngi ni wazari lezina bàyyi ma gaa yi allezina gaa ñi nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp diinahum seen diine laiban fo tan ngeen di gis tey ci dëkk bi ñoo xam ne fawuñu wax leen ma ñan la fo rek caaxaan di takk ay rajo di yuuxu dafa mel ni daal Sénégal moom seen diine li ci ëpp mooy rajo yuuxu rek di yuuxu rek di yuuxu rek ndeysaan allahu akbar sama wetu kër fee am na ñoo xam ne bu ñu sëlmaree rek di yuuxu te kër gi ndeysaan daam ko boppam di metti buñ commencé rek mun a wuy yaay woo fu ma jëm wallahi su ma amoon moyen dinaa yëg fëq rajo yi xoolal loolu yuuxu guddi yuuxu bëccëg am na benn maire boo xam day jaay su suy dem fajar de mu ne damay bàyyi ñuy yuuxu su ma ñëwee ma fekk leen ñuy yuuxu ñuy yuuxu yi kañ lay jeex même tudd yàlla sax kenn autorisé wu la nga takk rajo di yuuxu même tudd yàlla yàlla lan la wax bu ngeen may woo te darroan jàng nañ ko fii mais takk rajo di yuuxu yow rajo bi koo koy déggal yéen ñi rek yéen a bëgg a dégg yéen a ngi ci jàkka ji doy na teg leen micro bi mais déedéet il fallait que ñu turbale nit ñi il fallait que ñu yuuxu man li ma gën a yéem da ngay romb ay yuuxu fekk ñetti nit la ci sedd bi ñu ngi toog ñetti nit loolu moo ma gën a énervé ñetti nit yéen nelawu leen du ngeen bàyyi nit ñi nelaw noppalu leen du ngeen bàyyi nit ñi noppalu ñetti nit jar na takk rajo su ngeen doon yuuxu fi ba suba kenn du ñëw yéen ñett rek la toog leen ngeen wax li ngeen di wax mu jeex ngeen bàyyi nit ñi ñu nekk seen afiya mais non non bu soobee yàlla ñun duñ nelaw du ngeen nelaw waaw fii kenn du fi féexe kenn du fi am jàmm loolu mooy lan loolu ban diine la mbokk yi ngeen defa ne loolu moom Sénégal muy diiney fo diine boo xam ne yàmbaa bi ci la bokk sàngara bi ci la bokk xeesal bi ci la bokk meesi ci la bokk yaramu neen bi ci la bokk paccal bi ci la bokk dangal bi ci la bokk waaw na xumbu te dagaan rek loxo ci kaw bàkkaar ci est-ce que ku fi teew yàlla gërëm na la àjjana nga jëm loolu de mooy diiney Sénégal moo tax yàlla xam na yàlla foluwul foluwul gis ngeen aaya bi wa zari bàyyil allazina gaaña nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp diinahum seen diine laiban fo wa lahwan ak caaxaan Allah xam nga lu tax ñu jàpp seen diine fo ak caaxaan yàllaay nettali de mu ne wa garrathumul xayaatu dunia aduna moo leen jay moo leen wor aduna moo leen jay dañoo am wér gu yaram poos yi am dara ñu réer réew waaw ñu réer rëy réew ma ne yàlla nee na ñu ne waay waay dimbali ñu waay ban yàlla waay yuuxu leen waay loolu lañ lay may ay gaay te ñoo ragal yàlla ñu ne la ban yàlla ñun lu ñuy ragale yàlla waaye ñun lu yàlla digle ñun dañ koo faale ñun suñu yoon ci yàlla yooyu da lañ lay wax Sénégal auzu billah kon ay yu mel nii mbokk ndey mbokki jullit yi def ñuy wan ne alquran dëgg-dëgg waxu yàlla yow da nga yaakaar ne amul ñoo xam ne seen diine fola ah kay yéen a ngi ci dëkk bi ah ñaata yoon guddi ay guddi guddi guddi guddi guddi est-ce que mas ngeen tëdd guddi te déggu leen ay yuuxu kon ñi ngeen dëkk saa yu ngeen fo te guddi gu nekk ne di nga dégg ay façon di yuux tey ñii la suba ñee la ginnaaw suba ñee la ginnaawaat suba ñee la ginnaawaat suba ku nekk di yuuxu rek mel ne ku yuuxuwul bokkoo man de ibaadu yi dong laa dul dégg guddi yi ñuy yuuxu xaw ma yéen fu ngeen nekk dee leen yuuxu yéen it wala leen am leen ndigal ci yuuxu dee leen yuuxu ndax ngeen am mbooloo bokk comme ku yuuxu am mbooloo te ngeen takk ay rajo commencé di yuuxu ah di yuux rek ku nekk yaa ngi yuux jëm fan lu ñuy dee nit ñi wala yonent bi alayhi salaatu salaam moom dafa amoon ay guddi yoo xam ne day wax saxaaba yi kaa leen ngeen yuuxu ñu leen ñu fecc allahu akbar waaye adduna gis nga adduna bu jayee nit adduna moo garaaw adduna bu la bewloo bu la adduna sànkee doo dëpp lu dul biir bàmmeel ko àdduna sànq ko àdduna nax dara du la dëppuloo loolu rek ñu ne la pëttax ci biir bàmmeel nag ndeysaan ngay bëgg a jóg suuf si téye la ngay doog a yeewu fu ma nekk mu ne la bàmmeel yaa ngi bàmmeel bi nga ñëw nga biig allahu akbar nga commencé nag li ma doon xutba démb mooy al umniyaat as sabaa juróom ñaari réccu yi yi ngay bëgg te doo ko amaat yaa laytani qaddamtu li hayaati c'est trop tard yaa laytani kuntu turaba c'est trop tard yaa laytani lam uuta kitaabiye c'est trop tard juróom-ñaar la yaa waylata laytani ittaxastu maa rasuli sabila yaa waylata laytani lam attaxis fulanan xalila man moo ci des yaa laytani kuntu maahum fa afuuzu fawzan azima juróom ñaar yaa nga yëpp c'est trop tard le médecin après la mort du dem du la jëriñ lu tax parce que adduna nga toppoon adduna moo la jay naan la waay garaawul ñii xam nga ne leen xoolal kii xam nga ne kii kii kii xam nga ne ëllëg mun na puus aljanna ne la duggal kii waay yow kii bu jàppee malaaka yi da leen di zëg gëzëm benn baram sànni leen fa leen ne la duggal xanaa xooloo ko gisoo kaala bi gisoo sikkim bi waaye yow gisoo mbooloo mi gisoo kii lu mu wax yàlla da koy def yooyu la la seytaane di jay ba nga bañ a topp yàlla ba nga réer ëllëg nag ndeysaan soo duggee bàmmeel doo gis kenn ndeysaan alxuraan wax na ko maalana laa nara rijalan ay waaye ana gaay yi ana góor ñañ doon gis guddeeg bëccëg ñu nekk suñu wet ana ñu tey ana ñu anañu dañ leen dëpp topp suñu borom bàyyi caaxaan bu nu bëggee dégg dëgg mooy nañ leen dëpp jaamu suñu borom loolu kese mooy dëgg bi wax ji li muy bari bari bari bari xam ngeen ne am na ñoo xam ne bu ñuy jaamu yàlla dañuy fo yàlla nag wax na wa maa xalaqtul jinna wal ins yàlla wax na subhanahu wa taala maa xalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma yàlla fawul fawluwul yàlla daf ñu bind pour ñu jaamu ko kon mu ne ñii lan moo tax ñu jàpp seen diine fo ak caaxaan aduna moo leen war wa garrathumul hayatu dunya aduna moo leen réeral moo leen sànq jàpp nañ ne duñ dee ndax fi mu nekk nii dara dalu leen am nañu xaalis lu ñu bëgg a lekk ku ñu bëgg a takk fu ñu bëgg a tukki ñu ngi leen wër mbooloo yaa ngi leen di wër am nañu ay R plus R plus am nañu ay 4-4 moo tax ndeysaan diine fo rek ma leen démb ci stade bi li fi xew méga lan méga de lañ ko tuddee méga méga ndeysaan bugguma egg ca la ca des nag méga bi rek ca laa yem méga na ngeen ñëw dañuy tudd yàlla dañuy lal benn perméable boo xam ne day daj stade bi yëpp loolu ban façon diine la ba loolu ban diine lan loolu lan la moo tax nee naa leen Sénégal kenn du fi dee ndax farata maa ngi leen di laaj yéen ñi nekk ci jàkka ci fan ngeen mës a gis Sénégal ku fi dee ci farata ci Sénégal laa wax de koo xam ne dañu ne ñii de dañoo dee lan la ñu ne dañoo julli woon fajar ñoom ñëpp ñu dee fan la ñoom de dendisaan dañoo julli woon tisbaar ñoom ñëpp dee nañ ñoo ngi nii ñoom ñëpp de dañoo wooroon rek ñoom ñëpp dee nañ ñoo ngi nii fan la ci Sénégal di ngeen ma ko wax ñoom ñëpp de dañoo jànge woon alxuraan ñoom ñëpp dee nañ ñoo ngi nii wala ma fan la ñoom ñëpp de dañoo demoon tudd yàlla ñoom ñëpp lakk nañ ñoo ngi nii dee nañ fan la ñoom ñoom de dañoo jëloon ay kaari njaganjaay di dem rek ñoom ñëpp dee nañ ñoo ngi nii dañoo jaamu ji fan la farata du rey nit Sénégal sunna du rey nit Sénégal lan moo leen di rey bidaa ak shirk rek catastrophe yi ngeen di dégg fii muy xew ci wàllu diine lan la farata la sunna la waaw ña ña ca dee ñaata lañ kenn mënu koo lim kenn mënu koo tàkk mu ngoog xam nga lu tax yàlla indiwul ci diine ji luy rey ay nit alquran moo ko wax maa jaala aleykum fi diini min haraj yàlla nee na ci diine ji indiwuma luy sonnal nit ñi bal yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra lu yomb laa bëgg ci yéen bëgguma lu jafe ci yéen yonent bi ko yàlla yónni lu mu wax innama bu istumu yassirin yàlla daf maa yónni pour ma yombal munoo julli taxaw ñu ne la nga julli taxaw wéeru munoo taxaw te doo wéeru ñu ne la nga toog te doo wéeru munoo ko ñu ne la toogal wéeru munoo ko ñu ne la noo jullee baax na julli rek doo jullee baax na fan yi am na gaa mbokk yoo xam ne envoyé naa leen góor googu nga xam ne xam mu ngi ci ñaataat est-ce que pëlul téeméer envoyé naa ko ñu bëri ah muy julli ñu jàpp ko bi ma ko gisee damaa rus. déedéet déedéet déedéet kooku meer bu màgget la. kee da doon julli bi ma gisee góor googu muy julli du ma rus yàlla xam na ko. ñu envoyé maan ma beneen vidéo boo xam ne kii julli amul ay tànk day nii lay def day def comme jaan dem jàkk te jàkka lay dem de day def comme jaan nii tëdd dem jàkk ñu wanaan ma keneen koo xam ne. la hawla wala quwwata illa billah ay ñun borom tànk yeeg borom bëri yeeg borom loxo yi xaw ma fu ñu jëm léeg-léeg nga gis.
gis naa si internet boo xamante ne amul ay loxo gémmiñ bi lay tijjee alxuraan di ko jàng.
di jàng wallahi xoolal koo xam ne amul loxo muy ubbee gémmiñ gi alxuraan di jàng yow mi am loxo nag soo demee looy wax yàlla ëllëg soo taxawee ci kanam kooku yaa kooku ngeen taxaw nga defee ne kan la ñuy njëkk a jël il faut ñu delloo suñu xel. xoolal tey li ñu yàlla may yaa ngi dox yaa ngi kërëj kërëj yaa ngi daw bët yi nopp yi gémmiñ yi tànk yi loxo yi lépp a ngi sànni ba pare doo jaamu yàlla nga gis koo xam ne amul dara mënul loolu mi ngi jaamu yàlla ah yow li nga waroon def nga gis ko koy def allahu akbar dëgg dëgg dëgg war nañu bàyyi xel sunu bopp war na noo góorgóorlu bu baax góorgóorlu am na yoo xam ne saa yi ko gisee rek war ngaa gën a góorgóorlu bu fekkee kii moo mën li kon yow nag yow mi wax ne man gëm naa yàlla yow ngay wax ne alxuraan ak sunna nga gëm yow ngay wax ne man maa man damaa gëm Seydina Muhammad yow ngay wax ne tey jii bu yonente bi woote woon maay njëkk a dee dañ bàyyi xel loola bu baax a baax a baax a baax borom bi nee na wa zakkir bihi wa zakkir fàttalil bihi ci alquran bii fàttalil bu baax waaral nit ñi waaw fexeel ñu dégg alquran lu tax ndax bisa ngi ñëw an tubsala nafsum bima kasabat ñu tëj ñu yeew ñu fàtte ñu bàyyi nit bakkan fan lañ koy bàyyi fii jahannam bisa ngi ñëw fàttalil nit ñi balaa bis boobu ñëw ñu leen di fàtte ci biir jahannama bàyyi leen foofu yéen jàngeen alxuraan yàlla mu ne am na ñoo xam ne bu leen dugalee safara fa leen fay fàtte lu tax ndax dañoo fàtte woon yàlla ah dañoo fàtte woon yàlla yàlla mu ne moo tax ma dugal leen fi tey fàtte leen xam nga yàlla du fàtte waaye ci coobareem la leen fa bàyyi rek ba mu neex ko waaye xam na ne ñu ngi fi waaye def leen di wan ne comme da ngeen maa xamul woon bu soobee yàlla tey fii moom dana wex ci yéen xat kon nag nit na xam yàlla waaw fazkuruni azkurukum dee leen ma fàttaliku dee leen ma tudd dañu laaj benn borom xam-xam ah yàlla mu ne fazkuruni azkurukum fàttaliku leen ma ma fàttaliku fa- ma fàttaliku leen moom mu ne zikrullah yazdadu zunub fàttaliku yàlla ñu ne ah mu ne day dolli ay bàkkaar kese ñu ne déet bul wax loolu mu ne maa ko wax ñu ne ko yàlla nee na fàttaliku leen ma ma fàttaliku leen mu ne ku fàttaliku yàlla am bàkkaar ah ñu ne ko lu tax mu ne da nga ko warul fàtte ah waroo fàtte yàlla kenn nit ñun bi ndax di nga fàtte sa doom booy añ di nga fàtte sa soxna di nga fàtte sa pap di nga fàtte sa yaay di nga fàtte say njaboot nga bëgg a fàtte yàlla yàlla du kuñ war a fàtte yàlla koo xam ne la programme bi yëpp ci moom la war a tàmbalee balaa muy dem ci leen ni waaye ndeysaan dundu sénégalais mooy yàlla mooy mujj hankadi kay ko allah heddi heen kala ko min mbaawno min mbaɗi kala ko min ngannduno min janngi kala to nawatende kala to naweteno neɗɗo min nawimo hankadi kay min jooɗi emin pada allah wona ko noon mbiyata waaw fi mu nekk nii kay yàllaa ci des fépp fu ñu xamoon yóbbu nañ ko fa lépp lu ñu mënoon def nañ lu ñu mënoon a jàng jàng nañ fu ñu xamoon bu ñu fa yóbbee nit mu tane yóbbu nañ ko foofu waaye kenn mënu ci dara léegi nag ñoo ngi toog di xaar yàlla gis nga ndeysaan waaw ñoo ngi toog léegi nag di xaar yàlla yàlla rek a ci des kan moo ci nekkoon bu njëkk moo tax ñu ne boo dee ñëpp ñàkk ba mu des yàlla kon nag àndal ak yàlla bu ni dee xam nga yàlla nee na la sama jaam nga nii ngay dund nga bañ nga ne ko du ma sa jaam dara man may jaamu booy yi wala may jaamu bal bi wala may jaamu alal wala may jaamu wala may jaamu lu la neex ñu ne dee na alal ji mu ne man dem naa de wax dëgg yàlla man mënatuma ànd ak yow xale yi jigéen yi ñu ne ñun ah vraiment ñun duñu ànd ak ku dee. équipe football bi ñu ne non dee nga ñu ne waaw ñu ne ñun duñu ànd ak ku dee fi nga doon liggéeyee ñu ne dee nga ñu ne ñun mënatuñu ànd ak ku dee ñëpp ñëw ñu ne mënatuñu ànd ak yow ñu ne jël leen jaamu yàlla bi dugal ci morgue bi gis nga. amatoo tur de su nit dee li muy njëkk a perte mooy turam wala awwalu ma tasqut indal mawt ismak li njëkk a wadd soo dee mooy sa tur bi nga amoon colonel mon lieutenant le président monsieur le ministre monsieur le sénateur extra extra yooyu yëpp da nga koy perte lu ñuy wax ana néew bi ñu ne mi ngi ci jàkka ji ana néew bi ñu ne mi ngi ci jàkka ji kenn du wax ne ndax sang nañ ustaas de dañ naan ndax sang nañ néew bi gis nga amatoo tur ndax ñu ne ñu ngi koy waajal waaw ndeysaan ñu yenu kees gi ñu ne jël leen ko kenn du wax yenu leen diw ah yenu leen néew bi allahu akbar gis nga amatoo tur ñëpp daw nañ kañ lañ la bàyyeel yàlla jaamab yàlla bi lañ wax jaamab yàlla bi ndeysaan même buñ ko tegee di ko julli imaam day wax allahumma innahu abduk allahu akbar waxul allahumma innahu cheikh allahumma innahu nabi allahumma innahu kaana colonel boobu non kenn dox loolu allahumma innahu abduk allahu akbar yàlla sa jaam baa ngi nii de yamul sax ci nekk sa jaam wabnu abdik sa doomu jaam bu góor la wabnu amatik sa doomu jaam bu jigéen la moom baayam jaam la yaayam jaam la moom mii jaam la comme ñoom ñetti ñëpp ay jaam lañ nga dégg gars yi ne amin waay amin waay wala te loolu tey ku ñëw sa kër fajar fëgg fajar laa wax de nga ubbi mu ne la yow jaam nga sa baay jaam la sa yaay jaam la nooy def ah ak moom ah ah lu tax kii ñu ne ko jaam wallaay doomu jaam doomu jaam nit ñi ñu ne est-ce que lu tax allahu akbar dañuy fo rek dañuy fo rek waa ji du yem yow ci du loolu li di nga yaakaar ne imaam ci loolu la yem déedéet da koy accuser allahumma innahu in kaana muhsinan yàlla waa ji in harfu lan la in jàng harf arab in harfu sart la harfu sart la yàlla bu dee kii da doon def lu baax kenn ñemewul dee ñu ne yàlla kii da doon def lu baax kenn ñemewul yàlla kii doon def lu baax kenn ñemewu ko wax loo ci xam loo ci xam yow da nga koy gis rek mu toog samedi bu nekk di tafsir loo xam ne bu tafsir ba pare day def soirée maza taarif an zalik xamuñ dara di ah allahumma yow yàlla kii in kaana muhsinan bu dee da doon def lu baax da nga koy accuser bu dee da doon def lu baax ay waay waay waay waay fa zidhu fi ihsani dollil ko lu baax waaye wa in kaana musian bu dee criminel la woon daan def lu bon ba nga yàkkamti ko fa tajaawaz anhu baal ko te ñun ñii nga xam ne ñoo ci doon sonn di ko sangak di ko sangak di ko jéem a julleeg di la ko indil ah laa taftin na baado bul ñu ci teg de boo ko meree ñun bu ñu ci teg moo tax gars yi bu ñuy dugal seen tànk sax ci biir bàmmeel bi benn tànk la ñuy dugal génn benn bi ndax wóoluwuñu wóolul de moo bu ñu suulee sax da ngay gis ñuy daw lan lañ leen wax Sénégal bu ñu suulee bu kenn geestu loolu lañ wax ñëpp ay daw bu ñu yegsee ñu tegal leen paanu ndox ñu raxasu di xaar añ bi wala paanu ndox bi ci buntu kër ku dee ki lañ koy teg ne raxasu leen ngeen xaar ñu dóor ceeb bi jënd nañ nag ci suba fàtte nañ la gars yi kan moo war a lekk yàpp suñuy noos suñuy noos lu ñuy jëndi yàpp ah est-ce que kon ku ku am naqar war naa lekk yàpp Sénégal bu ñu amee naqar nag ci la ñuy lekk yàpp ndax nagu deux cent cinquante mille la ñuy jënd duñ jënd sax xar duñ jënd ginaar nag nagge nagge wala nag la ñuy jënd nag ngandu nag ñu takk ko ñu dem jël ñaata cin ñaata cin ñu rangale ko jigéen ñi takku otesu waaw dëj dañuy otesu ñu teg mbana yi waaw teg kanet yi ndox yu sedd yi ñuy jaagar jaagar yi waaw ñu commencé di way o kammaa yi naggal waraama ngareexa ñaamen loolu la gars yi di way wala wana ɗum jimata o kammaa yi naggal waraama ngare ha ñaamen li ci des nag ñemewuma ko yeggal yi am ngeen loolu mooy lan mooy kii de dee na rey nañ nag kaay la ñu lekk kaay lekk ba suur ne yàlla na ko yàlla yërëm kese ñooñu sax ñooñu baax ñi ñeneen ñi moom bañ jógee ci armée yi lañ seen xel gëj a dem ci yow balaa ñu dem ci armée yi koo gis suy wax ndànk lay wax liñ la de dem ci guddi am nga ci da feebaroon balaa ñuy dem armée yi ñëpp mu ngi ci sam ñu ngi koy sang ku ñëw ndànk ngay wax booy nuyoo sax ñoom asalaamaaleykum daa toog yaru bu njëgee armée yi booy añ ngeen ana affaire yi fu ngeen toll eh eh xaar rek rek commencé yuux suba ñëppay salleeru kenn dootul xamati la de te pourtant ndeysaan bi néew bi nekkee fii ñëpp ñëpp a yaru wala li may wax yéen gisu leen ko ah mu nga nee naa leen saa yi ma fi waxee lu amul rek taxaw leen nañ arrêté dars bi rek ñu ne lii amul li li ñuy dund la ñuy wax moo tax à la lettre fii lañ koy dundee ci réew mii bu leen yaakaar ne fenn la borom bi nee na nañu waar nit ñi nañ leen waar alxuraan balaa ñu leen ne rab tëj ci biir jahannama an tubsala nafsun ñu bàyyi bakkan bi ci biir safara lu tax bi ma kasabat ndax la mu fàgg woon laysa laha du ñeel bakkan bi min dunillahi walis yàlla waliyun kuy méngoo ay mbiram wala shafi du ko koy ràmm yowmal qiyaamati sunu borom wax na wax ju leer nañ jaamu leen ma balaa ëllëg ngeen di ñëw fii ñu jàpp leen ne leen ràpp ci safara du ngeen fa am ku taxaw di intervenir avocat wala ku taxaw naan man maa koy ramu sama taalibe la woon bon warul dugg fii c'est parce que moom doon na ma bayal wala doon na ma lii nangam nangam ci samay soxla la nekkoon moo tax yow yàlla waa ji amul sa jot loolu amu foofu de loolu amu foofu yàlla neen nañ ko jaamu balaa ñu neen ñu ràpp ci biir jahannama te kenn du ñeme taxaw waaw kenn du ñeme taxaw kenn waaye yéen ab gendarme day taxaw ci tali bi rek foo bi kenn du burle ah wala pale yéen a ngi nii toog pale dem leen ngeen dugg kan ma fi sénégalais ana sénégalais yëkkati leen seen loxo sénégalais yi sénégalais yi laa wax ñu yëkkati seen loxo ah ok waaw yéen du ngeen dem ngeen dugg pale lu tax du ngeen dugg nga ñëw nga ne eh man ci dëkk bi laa bokk damay dugg par force ah lu tax lu tax ah alkaati dafa am alkaati ok ñooñu li ñuy def foofu alkaati yi dañuy garder ku leen jox ndigal lañ garder waa léegi lu tax yéen ñemewuñ alkaati yi ngeen ne ëllëg àllaaxira fal force di ngeen di ko àjjana fal force ah pale ngi nii ñemewu leen dugg kër gaa ngi nii borom kër gi bu tëjee kër gi nga ñëw fëgg mu ubbi ne la lan la mu ne yow laa mu ne la tëdd naa dama la soxla mu ne ba suba ñemewoo dugg ñeen ne bu ngeen jaamu yàlla par force ëllëg dinañ dugg àjjana wala dañ doon seeti Ablaye Wade ki ñu doon àndal mu ne wax leen nit ñi nañ sol col gu baax ndax ku solul col gu baax col gu nuroo du dugg ok ñu ñëw wax ko nit ñi ne na ngeen sol col gu baax ay ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor bañ ñii kiris karas jigéen ñi paccal ñii sol ay tubéy ñii génne lu nekk rosa ba def seeni mees ñëw ndeysaan ñu raa nag di dugg biir palais da ngay gis courant ba yegg si rek police bi ne la nga xool ko mu ne dégage nga génn raa bi taxaw fële xam ngeen keroog ñaata kaar ñoo duggul 30 ñoo demoon 10 ñoo dugg ñaataa des vingt yëpp dugguñu ndax lan yére yu bon lañ sol ñu taxaw fee naan waa léegi nag ñu ñu ne eh mun ngeen jóge fii wala mun leen fee jóge gars yi arrière ñu ne eh fii yëpp la ñu wax bu ñu leen fi gis gars yi dem taxaw Sandaga di ñu xaar xoola Sandaga ba pare ma ñëw nag ñoom ñoom ñu ñëw man leen allahu akbar gars yi ñu ne ah man leen lan ngeen jàng ci li xew tey fii ñu ne ah lu xew lan mooy lan la ñuy jàng ci lii ma ne man de dama cee jàng àllaaxira ñu ne ah ma ne bu fekkee Abdoulaye Wade moo am fulla ne du ngeen dugg këram masama ak yàlla su ngeen jaamu yàlla ëllëg du ngeen dugg àjjana dafa leer nañ kon il faut ñu góorgóorlu jaamu yàlla ku bëgg dugg àjjana da ngay jaamu yàlla wallahi alazim ku bëgg a dugg aljanna da ngay dem nga jaamu yàlla te ngay dem nga jaamu yàlla loolu kese la nga mel ni yàlla bëgg gis nga ni ni yàlla bëgg soo ko melee rek boo ñëwee da ngay dugg fu la neex dëkkal ku la neex na la jur xam nga yàlla xoolul lool yàlla xoolul ku la jur xoolul foo juddoo xoolul sa këlëru yaram xam nga yàlla lu muy xool inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yonent bi wax loolu leer na al qulub wal amal xol bi ak jëf ji rek kon nag na xol yi set na jëf yi bëri te leer te baax te jëf du baax lu dul mu dëppook sunna li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan waxul aksar amalan ah li yabluwakum ayyukum ahsanu man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal innama hiya amalukum uhsiha lakum kon jëf la nañ leen jëf balaa ñu ñu ràpp ci safara du am ku ñu ràmm du am ku ñu méngoo sunu mbir sunu borom nee na wala shafi du am ku leen ràmm mu ne wa in taadil kulla adlin laa yuxazu minha loo maandu gis nga nit loo maandu maandu maandu maandu maandu yàlla du la tooñ ndax sunu borom du tooñ wa ma rabbuka bi zallamin lil abid sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu du tooñ kenn kenn kenn kenn kenn loo def rek loolu lañ lay fay wa in taadil kulla adl maandu gi lu mu mun a doon ak nu mu mun a demee laa yuxazu minha kenn du ci coppati tus borom bi tabaraka wa taala mu ne ulaika ñooñu allazina ñooy ñi nga xam ne ublisu allahu akbar xubisu bima kasabu dañ leen def ràpp ci biir safara tëj leen lu xa lu tax ndax la ñu doon fàggu ci ay lu bon yemuñu foofu mu ne lahum sarabun min hamim danañ leen naanal naan naanu ndox mu tàng jër ndoxum jahannama hamim almaau shadid mooy ndox mu tar alxaraara tàng alladi boo xam ne laa yutaaq kenn attanu ko naan yàlla nee na dinaa leen ci naanal danaa leen ne tëb seen doq yi yóbbu leen ci kàmb boo xam ne ci mbalka boo xam ne ndox mi baxaay bi kenn mënu ko nat waaye yàlla nee na dinaa leen ko naanaloo mu ne wa azabun ak mbugal moo xam ne alimun bu tar la xam nga ne ndox mu tàng dong buñ la ko doon naanloo fii ci biir dëkk bi ndox mu tàng kese ñu la koy naanloo buñ ci defoon xorom sax wala ñu def suukar sax doo ko naan wala waxuma la nag ndox moo xam ne mi ngi yem ci tàngaay fii ndox tàngaay ñaata degré la yem tàng cent cent ndoxum jahannama cent la tàmbalee jëm kaw kon fuñ jëm ah moo tax waa safara buñ duggee safara liñ leen di njëkk a xañ mooy ndox wa xiila baynahum wa bayna ma yashahun ndax dañuy xool waa aljana naan leen an afidu alayna min almaai aw mimma razaqakum allah eh waay waay waay may leen ñu ci ndox mi waay ñu naan waa aljana ne leen inna allah harramahuma ala alkafirin lii yàlla daka aramal ñaari lekk yi waa aljanna waa safara duñ ko am waa safara duñu naan ndox mu sedd waa safara duñu mos xéewali aljanna danañ lekk nag danañ naan waaye danañ egg ci aaya yi léegi ci kanam yu ñuy woon safara lu ñuy lekk lan la ñuy naan waaye noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu yal na nu yàlla musal ci loolu wa azabun ak mbugal moo xam ne alimun bu tar la waaw yow yàlla lan moo tax ñii nga ne leen ràpp ci safara ah nga naan loo leen ci ndox moo xam ne kenn xamul degré tàngaay bi fu mu yem yemu ci loolu nga mbugal leen mbugal mu métti ñuy lu ko waral mu ne bi maa kaanu yakfurun sabab bi benn kese la bi maa kaanu yakfur ndax dañoo nekkoon ci àddina weddi ma kes moo tax tey ma fay leen lii kon nag aaya bi léeg-léeg ñu wax ne bu ñu jàngee alxuraan dañu bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee suñu aaya tey bi moo ngi jeexee yàlla dana mbugal ñii lu tax ndax dañ koo weddi woon kon nag danañ dégg ne kon weddi yàlla baaxul yàlla yàlla def ci ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin wa iyaakum